bismillah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baki julli di mbokki talibé mbokki sénégal ñu ngi leen nuyu baaxa baax te leen siyaare gannaaw ba leen baloo àq te baal leen àq di ñaan yàlla ba leen jéggal nangul na sunu koor te mu bañ a mujj te mu bañ a doon sunu mujj koor bi jaay rasulullah sa sa barke cheikh khadim damay profito ci vidéo bi ci bisu koor bi mu jëm ci président jumaa mi fas yéene ji ca jumaa yi Grande Mosquée waaye imaam yooyu loolu nuy jàmbat muy suukaru koor te koor gi jeex wala ñuy wax ay muuri koor wala nu ko mën a tudd te ñi fi nekkoon tamal leen danoo xamul ni ñoom adduna bi li noonu danoo taxaw ci soppi réew mi wala danoo defe ne loolu bokku ci liy soppi ko imaam yi ci réew mi kenn ku nekk bu bëggee am cent mille ndax xam ngeen loolu xaalis bi bil si bi nu mu toll te jumaay day yéen imaam yi féete woo Dakar fu tàmmoon loolu ci président yi fi nekkoon bu ngeen jàppee ne Dakar doo ngay réew mi ba mu ba mu continuer ci euh, ci li nu koy jëkk xeex ci lay bokk ndax loolu corruption la ay imaam yu dëkke Dakar euh, nga di leen tamal korite ak tabaski loo xam ne dajul imaam yi ci adduna bi yëpp euh, dajul imaam yi ci Sénégal loolu corruption la ndax kon am na lu ne ca gannaaw lu bokkul ak yàlla ndax jàpp naa imaam yi ne ci dëkk kaw yi ñoo gën a sonn sax imaam yi bu sonn doon am ñooy gën a sonn imaam yi ci taax yi wala ñoom ñëpp kon imaam ñamuñ imaame di leen jiite nanu ko wutal xarum tabaski su dee amul lu mu liggéeyee te tey ne ca jàkka ja nanu ko wutal añu korite wala lu mu génne muurum koor ñi ngay ñi ngeen di jiite seen maamum yi maamum yi ngeen di jiite ñoo am pour taxawu leen ci bis yu mel nii du gouvernement bi da gouvernement bi mën la dajal imam yépp te worul te lolu worul bi imam di baye be kon lolu ci système bi la bokkoon da fi joggé nako ko jumaay teel déclaré ñàkk ragal fété nak day xañe da no taxaw ci soppi réew mi te lolu mo waral imam yi fofu ci dakar du xuloo ak ciow rek yu melni koy waral dañuy dem ba naan bëgg soldu wala ñu fay ko wër te imam biir lu mu dis diis ñamu jiite nanu ko jéem a yore ndax tuyaaba ji ca nekk warul gouvernement warul réew mi maamuum yi kenn ku nekk yaa ngi jiite lu mat juróom fukki nit juróom fukki nit bu kenn ku nekk defee mille francs donc cinquante mille la ku lay jiite juróomi waxtu yépp nag ba ju di la juute di la jiite ajjuma ba jullit it mu jiite la war ngaa mën a yëkkati deux mille francs ngir bàyyi ko muy bàyyi ay itam di la jiitu ci jàkk ji di la fa mujj muy cent mille gouvernement bi du leen yëpp du leen takk sare ndax fii foofu ngeen nekk am na imaam yu fi taxaw ci gannaaw jamono yële ci gannaaw ci kër gannaaw amatu Ba nank ñu ngi nii faat nañu waxtu yi te yaa tax imaam boo xam ne nag bu gisee borom alal wala borom ngóor faat waxtu jëru la jox ay eddi cinq cent mille ki cinquante mille jumaay na nga ci teey bu baax vidéo bi it ku ci jot danga ko daal di jàllale xam naa daal li may fàttali mooy nii yéen maamum yi nga xam ne yéen la imaam yooyu jiite yéen war a taxaw ci génne imaam yi ci loolu jële ci seen sëpp ci seen loxo <clears throat> gëm loolu leen leen yéen ñi topp seen gannaaw lu ngeen bëgg ci jàkk ji war ngeen ko mën a taxawal lu imam bi bëgg war ngeen caa mën a taxaw de leen taxaw ci defar seen jàkk yi taxaw ci jàppale seen imam yi te bàyyi gouvernement yi ni tàllal loxo di jaxasoo ñoom ndax ñoom matuñu ko ab buy jàmbat gouvernement am soxlaam matu waru la jaxasoo moom ndax jox gi leen ko doon euh, Macky Sall doon jox moo waraloon ñu ne mii mii bi Macky Sall yi boom askan wi ak di def li ko neex ñu ni kell ceereeral lii taxoon ndekk waxuñu woon ndax sunu waxon bu bu bu ni won Macky Sall ne ko ci deug tay bu toogaatoon du leen ko jox lol day yakam rew na ci tey loxam bu baakha a baax yow jumaay ah, na nga ci tey sa loxo bu baakha a baax ta wax len ñu set benen solution bu ci jitu nak ma moom yéen jité ñom jema taxaw ci sakal len lu lu lu korité ak lu ni tëbaskee man lol la ci xam waye lu mënu la daj Sénégal mom kenn waru ko tambalé ci ñenn bu lol amul nak correction la nu koy wooyee ndax jox ñi bayyi ñi mom bu yàlla taxoon bëgg ñu wate la lan koy tudde kon te yàlla du tax assalaamun ala man tabi'al